Hélène Tine maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou. yow député nga woon ci assemblée nationale waaye ràññee nañu la lool ci euh, xeex bi nga xam ni am nañu ko sumb ngir yorin wi ñeel alalu askan wi daal di aw ci yoon looloo waral tey ñu dalal la ci matinalu réew mi ngir waxtaanee surtout marché yi nga xam ni moo ñeel ceeb bi ak euh, yeneen i denrées yi nu jagleel askan wi nga xam ni ñoo néew doole te coronavirus bi ñëw yokk leen loraange yow ban jàngat nga def euh, ci li jot a xew yépp marché yeeg ni nu ko joxeeg transport baak yu waaw jërëjëf Fatou maa ngi leen di gërëm di leen sant ci li ngeen ma may ma mën a àddu ci eh, wax eh, li xew eh, li xew nag nekk na lu doy waar ndax Sénégal yëpp foog naa dañuy jaaxle ñu déggee mbir mi may masawu d'abord waa Sénégal ci lii ñuy dund ndaxte lii nii mën naa ne fitna la boo xam ne ku nekk yaa ngi koy dund ci wàll wu nekk li xew nag dafa nekk lu yéeme parce que ñëpp xalaatoon nañ ne tey suñuy xel ak suñuy xalaat ni ko président woote woon doxalee ko ñëpp rafetlu ko mu woote teg ay jéego yu am solo ñëpp tàcc ko mais di ko ñaax pour mu doxal ko ci ni mu gënee man loolu moo doon en tout cas suñu taxawaay ah ñu gestu jékki-jékki gis ay doxalin yu tey xel parce que lii tey li xew nii ëpp na sax tey xel li xew nii ci xew dafa dafa jéggi dayo dandax président dafa waxoon ne dafay teg kuréel goo xam ne kuréel googu mooy saytu mooy doxal mbir mu jëm lépp ci yéene boobu mu am ci askan wi ci jamono ji ak li ñuy dund waaye boo tegul kuréel boobu nga commencé di dërule dérouler loo xam ne sax yow loxo yañ ko teg sa loxo njaboot la may fàttali ne ki ñu dénk mbir mi même su fekkee ministre de la république la ne ñu ngi koy xoolee ni waaw goro président la te nag nañ waxante dëgg juróom-ñetti at ngi nii mu jox ko mbirum wàllum ndox te wàllum ndox bi foogu ma foogu ma ne def na ci jéego yu ñu mën a yu ñu mën a euh, ràññee ak yu ñu mën a saluer résultat yam te def foog naa ne nekkul ay résultats yu extraordinaire donc président waroon na xool yooyu yëpp mu ni ko mankat lii dama ko séqoo ak samay nawle ñëpp nangul ma naa teg kuréel googu kuréel googu mën a saytu li ñuy def waaye doo ñëw jël say décision ba pare na na dañuy wax nag lu feeñ ci sëy ba dafa nuyoo woon te ngoro la hmm. ndax ba muy woo nit ñi fekk ne jëloon na ay décision ba pare doog leen a woo nit ñi xool intére Sénégal xool intérêt réew mi xool li xew ci àddina bi ñëpp teg lépp ci suuf mais fekk jëloon na ay décision mu continuer ci lancé boobu di dérouler boo oowee léegi comité national de pilotage boobu ngay waaj a def ba pare te fekk jël nga say décision jënd nga sa ceeb ba commencé di ko séddal hmm. mais la commission bi di def kon nag ni ñu jëndee ceeb bi tey na xel niñ ko doxalee tey na xel faatu dañu xalaatoon ne ci lii nañu jël koppar gi ñu xool nu ñu koy def joxe ndax bu fekkee ne pour yóbbu ceeb ba da nga nar jël dërëm yi nga xam ne moom nga wax nit ñi nañ ko joxe pour dajale ko pour nga taxawu askan wi nga war ci jël ay milliards pour di ko jox ay nit ñoo xam ne kenn xamul nu ñu leen jëlee pour ñu mën a joxe ceeb ba wala pour ñu yóbbu ceeb ba mais loolu nga dem yónnee xaalis ba seet ñu ngi koy jox ñu ñu yegg ca ñoom ñu jënd bu dee dugub lañ soxla ñu jënd ko bu dee dañoo soxla suukar ñu jënd ko bu dee dañoo soxla keccax wala ñebbe ñu jënd ko mën a dundal seen njaboot waaye jël ay ceeb yoo xam ne ay nit ñoo ci du ku nekkul transporteur lii dafa jéggi dayo jéggi na dayoo te dafa laaj leeral faatu hmm. affaire u ceeb bi muy tra ceeb bi ni nu mu tudd muy marché ceeb bi ni ñu ko joxe hmm. laaj na leeral xaw ma lu tax jëluñu ceebu mbay bi ndax dañoo digoon sax autosuffisance en riz en deux mille dix-sept lañ ci toll riz vallée bi est-ce jël nañ ko yëpp ba mu jeex balaa ñuy gaani loolu yëpp war nañ ko seet deuxièmement ni ñu joxe transport bi jéggi na dayo day na waar ab député boo xam ne muy suñu frère Diop def nañoo moom douzième législature mais Diop mu ngi woon ci ambulance yi ci douzième législature bi mu ngi woon ci ambulance médicalisée yi xaw ma loolu nag dañ ko leeral seet ko am naa loxoom daal mu ngi ci doon dugg waaw mu nekk ci projet gros porteur mu nga ca mbalit ma tey transporté ceeb nga ne fa benn nit mën na lu nekk rek nga mel ni ab charognard yenu ko ne man maa koy àkki bon te nga nekk député mais li dafa yéeme dafa yéeme dafa doy waar moo tax nag Fatou bi dafa laaj ñu seetaat suñ bopp mm. foog naa pandémie bi daal won nañu ne loo lu lu lu lu jikkoo ak borom pax ma rek la parce que dañoo woon ci la patrie avant le parti ñëpp ne président Macky Sall le 4 avril bii dafa doxal la patrie avant le parti jiital patrie bi waaye nag munu mun munu cee génn dellu fi na ca parti ba ndax ku bokkul ak ku parul ci moom rek bokkuloo ca lañuy def. Hmm. kon loolu saxel itam euh, tey na ci ni ñu joxe marché bi ku ñu ne ci APR la bokk muy borom euh, bambuk euh, gañe itam wàllam ci marché ceeb bi. waa moom kay fi mu ne marché muy marché ceeb marché yi joxe gum yëpp ci affaire Covid 19 bi suñu bëggoon mu leer Fatou. Hmm. dañ koy awale ca kuréel ba mu tegoon. ca départ ba. tegagu ko sax da koo annoncé woon rek. ah def ko annoncé waaye kuréel ba mujj woo ko samp mujj woo ko samp ngay joxe ay marché waa kuréel ba bu ñu ñëwee lan la ñuy def dañuy toog di xool léegi loolu moo tax ba nee naa la dara lu leer munu fee am choix yi ñu def nii sax ne est ceeb lañ waroon joxe wala dañ waroon joxe ay diwlin wala dañoo waroon yónnee xaalis wala dañu waroon jël commerçant yi nekk ci biir Sénégal ñu xool ne ñu ñoom it dinañ jànkonteel ak ay jafe-jafe ndax ñu doon dënd bu ñu amatul lu ñu jëndee. Mm. commerce ba dana am problème ñu jël lii nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk. ñu dem ci région bu ne la fa ne ci ceeb commerçant ya yor ko ak la fa ci ay ñebbe ak la fa ci dugub ñu dajale ko seet mi ñu koy séddalee ca biir gox ba. Mm. bu bu paree ñu xool lu manqué ñu doog a jéggaani dinañu dundal commerce bi dina dinañu dundal askan wi ah te dinañu dinañu dinañu dinañ dinañu dinañu yaxanal suñu suñu suñu alal mm. waaye tey jii dan ngay gis ku nekk ngi daw di wuti marché mm. te ña fay wuti marché du ñenn ñu dul ña fa far waaye benn rek laa lay jox fa ma xool nee nañu taskatu xibaar yi mooy borom journaux yi nga xam ne sax fa la ñu tasee wax ji ne dañuy joxe ay marché mais soo ko xoolee ñëpp ñoo xam ne la ñu leen jege la ñu leen jege la de waaw kon nag tey jii li ñuy wax daal ne dañ doon woote la patrie avant le park ak liñ doon wax ne nañu def cleaning day xam nga lu ñuy war a cleaning mooy li ñu war a raxas mm. mooy doxalin yi ak jëfalin yi ak jikko yi loolu suñ ko raxasul Sénégal dara du fi jóge te ñu ngi am yaakaar ne ak lii nga xam ne suñu borom moo ko indi nag muy muy loo xam ne daf ñu ci bëgg ñu dellu si dina may Sénégal ñu dellu ci seen xel xoolaat ci doxalin bi wala wuti ay nit ñoo xam ne dinañ leen defal loo xam ne moo gën ci ñoom. Mhm. alors ngir yëf yi leer am nay activiste yoo xam ni jël nañu mbir mi yóbbu ko ca kanamu nag am nga yaakaar ne ca cappaandaw la dana jur dara. maa ngi encouragé ak saluer dox euh, doxalinu activiste yooyu maa ngi ne heureusement que activiste am ci jamono jiñ toll ndax président moom ci boppam dafa yeewu daal di jël euh, homme politique yëpp. oo leen ci loo xam ne itam xel mën na nangu ñëpp d'accord te loolu lay Sénégal ak addina bi yëpp di doxale mooy nit ñi ñëpp teg nañu lépp ci suuf pour xeex ak lii nga xam ne moom moo moo moo dugg ci addina bi waaye bu fekkee ni que loolu warul tax xeex boobu warul tax ba ñu fàtte li nga xam ne mooy tax ba xeex bi ñu mën koo gañe ndax bu ñu bëggee gañe xeex bi contre Covid bi doxalin yi la ñuy njëkk a soppi moom la ñuy njëkk a changé donc maa ngi félicité activiste yooyu di leen wax ni di ñaan di di yaakaar nag of nag ndax def na ay jéego yu am solo nag bu yàggul of nag dina xool li xew dina xool kaawu député boobu nga xam ne tey marché bu am mu nga te biir du ambulance du mbalit du gros porteur du du du yóbbu ceeb ak yeneen ak yeneen ñu xool ndax kooku rek na loolu lu mën a nekkee ñu xool ndax est-ce que ceeb bi niñ ko waroon joxe noonu lañ ko joxe mais man pour man pour finir Fatou man li may yaakaar mooy maa ngi au président de la République ne ko tey mbir mi du responsabilité ministre benn muy koo xam ne goroom la wala du goroom wala keneen du responsabilité benn ministre responsabilité personnelle am la ndax dañoo jël tey loi d'habilitation teg ko ci loxoom mu waxoon ne dafay teg comité de pilotage weesul nga gis ne doxalin bi takk na suuf tey na xel nga ni naa dellu ginnaaw taxawal li ma war a taxawal pour ñu mën a xeex bi ñu mën ko wéyal ci jàmm ndax tey nag xeex bi lañu ñu xeex bi ak cohésion boobu nga xam ne moo amoon mooy jàppoo manko boobu ñu woote woon ba ñëpp taxaw ci pour xeex contre bii loolu la nekk tey di di faagaagal moom la moo yànq dañu yànqal euh, euh, maanaam Euh, euh, dynamique boobu nga xam ne moom la ñu gisoon te dañoo bëgg président ci boppam addu ci taxaw ci ndax tu benn jëwriñ tey jii la ñuy waxal su ñuy waxal moom boobu ci boppam la ñuy waxal moom mooy dara mënu ko ump ca la ñu jël ci ay ay décision dara mënu ko cee bett donc moom la ñuy xaar tey mu corriger li nga xam ne moom lañ gis ne mu ngi yàq cohésion nationale bi xeex bi nga xam ne moom la ñu war a xeex Covid 19. alors honorable bu weesoo marché bi ceeb beeg transport bi leneen di jaaxal ñenn ñi aussi mooy ñay jot ca ndimbal la ndax sa xel teey na ci nanu koy séddale. loolu de xel moom dina ci weesu dina ci tooy dina ci dina ci teey di mooy xel teey munu cee ñàkk faatu ndax soo xoolee ni pour joxe quelques marchés jëndi ceeb ak livrer ceeb. publicité jëndum ceeb ba dañ caa dugal par parloo bu fës dañ caa dugal le parti avant la patrie mooy boo bokkul boo farul bokkuloo loolu lañ ci dugal kon duñu ñu bett ñu dem ba ca cëppaandaw ba war joxe dund gi ñu ni dañ cee dugal par parloo loolu dara dara du ñu waruñu cee bett moo tax ma ne na président jóg taxawaat na taxawaat wax ak askan wi ndax askan wi nag ah tiit nañu ci Covid bi waaye tiit nañu ci doxalinu euh, nguur gi liñ ci gisagum ndax Mansour Faye wax na waaye dafa gën a yokk sax jiixi jaaxa ci xelu nit ñi boo ko gisee ni mu doon waxee ak ni mu doon ñaxtee sax nga xam ni que kii ah ay waxam sax. Euh, moom ci boppam gëmu ko xam mu mu ngi koy wër. kon yow la mu joxe ci ay précision doyu la dalul sax. ma ne xool ko rek attitude am rek ngay xool il n'était ni serein amuloon benn sérénité ba muy wax danga ko xoolee amul sérénité euh, euh, ci ay waxam boole na ci sax arrogance kon ñun xaaruñu loolu xaaruñu loolu ci ay jëwriñ ci jamono juñ toll mm. moo tax ma ni. kuy doxalee noonu tey bu la nee tey dinaa dem doxale noo xam ne ñëpp dinañ ci jot ña ca war a jot danañ ko jot ak ñu te ñu jël xam ne bourse familiale yi ña fa nekk mooy baas bi ñu gën a bëri ni ñu leen tànnee yàlla di yàlla xam doy na tey jii kon tey xel mënut a dal ci lii hmm. en tout cas ñun ñu ngi delloo ne ñun xalaat nañ ne président de la république ci boppam moo war a xëccaat ndax dara mënu ko ump ci li ñu def dara mënu ko cee ump na seet nu ñuy rectifier pendant qu'il est temps ñu xool ni ñuy def ba ñëpp seen bopp ci alal ji nga xam ne teg buñ ko saax saaxee nii dinañ toog ay weer quelques weer bu ñu ñaari weer yi su rombee dinañ xam fuñ koy jëliwaat nañu ko jéem a injecté ci biir askan wi commerçant yi jot ci seen wal transporteurs yi jot ci seen wàll askan wi ñu war a jox dund jox leen ko ca gox ya ñu ne minimiser charge yi ba nga xam ne bu ñu paree xëy na nit ñi dinañ amaat loo xam ne dinañ ko mën a jël fonctionné waat ko xaalis boobu tourné waat ci biir askan hmm. moo gën ñu jël ko jox ko ñaar wala ñetti nit wala ñeent ñoo xam ne bu ñu paree ñoom seen bopp ñu dem ak seen seen tëggal guy mais loolu dafa dafa dafa dafa dafay dafa mënut a mënut kenn mënu ko nangu kenn mënu ko imaginer donc maa ngi ñaan of nag mu taxaw ba loolu yëpp aussi ñu leeral ko ak yeneen ku leen ni nañu jóg parce nag xeex covid 19 Euh, day jeex waaye xeex jikko yi nga xam ne ñoo fi samp di pax ba lépp luñ ci def ñu nërmel ko ñu yàq ko loolu aussi dafa war a nekk xeex bu ñuy wéyee. ñu jeexal ci xëy na crise sanitaire bi nu nu ko gérer ban jàngat nga ci def ndax dal na sa xel. waaw maa ngi félicité surtout euh, euh, fajkat yi vraiment muy ñoom professeur Seydi professeur Bousso ñu ngi leen di félicité di leen encouragé macha allah yal na leen yàlla gën a taxawu. ci euh, siggil nañ Sénégal ñu ngi dalal xel waa Sénégal waaw euh, di encourager ministre de la santé ak équipe am yëpp ndax gis nañu ne ni ñu taxawee ñu ngi leen ci encourager ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di ñaanal euh, ci wàllu gestion sanitaire u bi wax dëgg yàlla mënuñu lu dul ne gàcc ngaalaama vraiment corps médical Sénégal di leen ñaanal ñoom ñëpp équipe infirmier baak infirmier ba jëm ba ca équipe yu mag la ndax ñoom ñëpp tey ñoom ñoo nekk di xeex ñoom ñooy armée biy xeex contre contre dans cette guerre là contre le virus mm-hmm. maintenant nag ñooñu nag seen liggéey bu ko politiciens yi gàkkal bu ko politiciens yi gàkkal ndax lii ñu gis nii bu fekkee ne nii lañ doxalee ci ceeb bi alal ja war a dem ci jëndal leen ñoom la ñu war a jumtuwaay ya ñu war a liggéeyee ak lañ leen war a aaree jar nañu tiit ci nag faat hmm. bu fekkee ne alal ji ci ceeb kese lii fës na nañu xool nag matériel médical ba ndax kenn jaaralewu ko fii ndax loolu nag dafay nar nekk leneen loo xam ne fi muy laal dafay metti en tout cas ñu ngi leen di encourager bu baax di appeler à la vigilance waaw que citoyens yëpp nañu gën a vigilant tey hmm. face à ce qui en train de se passer jërëjëf Hélène Tine ñu ngi lay gërëm fàttali ni député nga woon waaye euh, fës loolu itam ci xeex ngir euh, yorin bi ñeel alalu askan wi aw ci yoon ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi. merci beaucoup Fatou merci maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla aar leen yéen tam. amiin jërëjëf. jërëjëf.